basumo basumo mbare soko non ko abidi ndeysaan iba famale nafiyo nafiyo koy d'abord un président nous a parlé un président supernaturel nous a parlé la jeunesse depuis tout à l'heure vous me passez des vidéos de <laughs> Mollah Morgun non grand c'est ça la jeunesse nous sommes tous sur la même longueur d'onde on a un nouveau président Mais moi, je vais venir largement sur son discours. Largement, parce que c'est un discours que j'attendais. Le discours de l'unification. Parce que ça, sans unité, sans la paix, sincèrement, on ne peut rien avancer. Il y en a qui sont déjà morts. Il faut qu'on l'accepte. Les gars, c'est difficile d'accepter. c'est très difficile de pardonner mais il faut qu'on passe il faut qu'on pardonne il faut qu'on pardonne gars yi mënuñu si dara gars yi maa ngi dégg depuis suba booy noo non grand fayu fayu eh loo prémédité lu nekk nit du prémédité pour teg moromam nit jamais de la vie kooku duma ko nangul kenn tey xalifatul art Sénégal douze ans yi passé kan la ko yàlla joxoon du Macky Sall ndeysaan Macky Sall jiite woon sëriñ si jiite imaam jiite abbé jiite kilifa aada jiite ñëpp tey bu ñu demee ba fii ñun ñi di woote réconciliation nationale xam nga réconciliation nationale soo ko bëggee def foog nga xam fi ngay commencé la jeunesse <coughs> xam nga man tey ñan lay njëkk gën a félicité ñoom Moustapha Diakhaté ñoom Cheikh Yérim Seck ñoom Madiambal Diagne parce que sans ñoom duñu xam valeur Ousmane Sonko sans ñoom duñu xam jikko Ousmane Sonko sans duñu xam ne xale yi pare nañu pour am loo xam ne da leen révolté loo wala sans ñoom cette révolte la est-ce que ça serait aussi déterminante te lu tax tey mën a réconciliation sociale ñooñu tey mënuñu leen génnee Sénégal non non non non non non parce que ñu bëri ñu mën naan grand fayu si kii di ma jox ay lis <laughs> fay si kii fayu si kii fayu si kii déedéet man pour ñu dajaloo Sénégal laa leen wax man ndeysaan nañ jéggalante booloo doon benn man man loo leen may mënti wax rek gars yi foog ñu doon benn gaay yi foog ñu doon benn. gars yi foog ñu doon benn gars yi foog ñu doon benn billaay man ma may toppante nii kii mooy diw kii mooy diw déedéet déedéet man nekkuma ci loolu. rey nañu Fulbert rey nañ ñoom Didier déedéet déedéet on a du pain sur la planche. dafa am lu ñu war fi mu toll nii gars yi nawet bii rek mooy suñu premier programme en tant que ñun en tant que li ñu jaay sénégalais yi ba mu da jaral ñu suñu martyr yi metti na lool mais déedéet gars yi booy dee nañ ba pare tëj kaso bi dem tribunal beeg dellu ginnaaw la si man te man comme xam nga rek dama xeex te moment yi xeex baa ngi doog a commencé nax noon bu taxawee di la seetaan saa waay xoola bul ko tal xam nga lu gën a garaaw ci ennemi ennemi boo ko nootee da ngay yokk dooleem mais da nga koy convaincre ennemi da nga koy convaincre encore une fois Bassirou président Bassirou Diomaye ngeen baal ma bokkatul Pastef xajatul ci parti politique ci Sénégal la xaj réconciliation nationale la jeunesse foog ngeen comprendre ni réew kenn du ko defaroo defaree fayante déedéet man gisuma loolu man sama dimension tolluwul foofu foog ngeen comprendre ne tey tey tey nii tey tey tey tey Macky Sall ci lum ñu tegal nii bu ñu ko tegalul woon bi heure du ñu yegg fii te neex naqari yàlla dina ko jàkkaarloo ñu ñëpp ndax mooy xalifatul ard ba le deux mooy xalifatul ard ba le deux si dimension ñu ngi ci weeru koor ñii ñu tëjoon leen koor ñu war génn koor dugg pale yooyu yëpp calculé nañ ko ci dimension te man projet bi dem ci gis leneen loolu ñu gisul deux mille vingt quatre Bassirou am quarante quatre ans te projet bi si man au minimum foog mu def kon ANC mooy nan fii ba deux mille quarante quatre pour lan mu ne deux mille quarante quatre bas foog mu am deux mandats vingt quatre vingt neuf vingt neuf trente quatre moo xam ku muy tegaat wala bu dee mooy toog trente quatre trente neuf trente neuf quarante quatre baatin boobu muy yéeme boo buggee fayonte du la jik du logique rupture dafa am lu koy lal rupture dafa am lu koy jur duñu ay tubaab rupture la ñu wax rupture mais rupture lan moo koy lal lan moo koy jur tey Bassirou mu ngi def discours yéen ñëpp ñu bëri ñu ngi may woo si suuf mais man xam nga man discours bi la laa ci doon wut réconciliation nationale bi man man ba pare man xam nga man luy sama problème moment bi ñun naka la ñuy nekkaat jàmm sey yi tas yi naka la ñuy nekkaat jàmm mbokk yi tasaaroo yi naka la ñuy nekkaat jàmm ñu doon xoolante tirante ni seen biir nga xamee sa grand mu dóor la bal jàmm jooju laa bëggoon naka lañu ciy nekkaat ak tey même gendarme yi doon dërëj ñoom Moussa Fall non même gendarme di mos yi doon dërëj ñoom président Bassirou Diomaye ak ñoom Sonko même gendarme yooyu tey ñooy taxaw tey au garde à seen kanam ñu demaat si yeneen si benn service bi diine bi mu fi ñëwee lu lu baax yëpp mënu ko fi génne ni baax yëpp mënu ko fi génne anti système progressivement lañ koy def mais coupure bu brusque sevrage brutal foo ko defee gaañu Fidel Castro dund na ba dee teg anti système dëkkam gunge ko il était coupé du monde moo tax tey bi Bassirou Diomaye Faye waxee ba ne dañuy reprendre CEDEAO à nos valeurs africaines avec une souveraineté africaine laa ne merci beaucoup là en prison ils ont appris quelque chose en prison ils ont grandi bi mu ne coopération bi dinañ defa coopération dëkk yëpp mais gagnant-gagnant lay doon ça sera prolifique pour le Sénégal maanaam bàyyi di jéggaani defarlu si fii ñoom nañ ñu fexe andi société yi ñu samp ko Sénégal liggéeyloo doomu Sénégal loolu suñu objectif. mais pas ñëw rek ni du ma topp France déedéet kenn waxu leen loolu déedéet déedéet man c'est man sama niveau politique xëy na kenn waxu leen ne on va se séparer de la France kenn mënu leen wax ne on va se séparer des États-Unis kenn mënu leen wax ne dañuy dem dugg Russie kenn mënul kenn mënul déedéet parce que dafa am situation géopolitique situation ay stratégie. yoo xam ne nguur foog mu doxee noonu même ci pétrole beeg gaz bi nguur foog mu doxee noonu parce que ci état lañ nekk ñu ci parti bas dina teg jalon boo xam ne Bassirou du mes doo ko comprendre mais déedéet jalon boobu c'est pas que dafa nekk ak bi de déedéet mais système ngay teggi pour teg système mais c'est pas parce que tu coupes le système personne ne peut couper le système personne système système la gouvernants yi ñooy changé dérouler système bi dans un autre dans une autre manière mais les gars sont la les hommes sont la les institutions sont la d' abord y' a combien de fonctionnaires nekkul ci mënoo changé lépp diine bu fekkoon kenn du topp kenn bii heure diine ji du am ndax rasulullah dafa fekk diine hébreu waaw wala déet bi mu ñëwee waxtaan ak ñoom waxtaan ak moom gars yi bañ ni ñu def Sonko lañ ko def dërëj ko fexe ko génnee dërëj mu résister ba ñëwaat ma kii aji màkk bi mu ajee màkk ba tey la diine sampo ñun tam tey fa lañ toll ñu am ni liggéey carrément liggéey mooy convaincre nit du doole liggéey dëggantaan mooy convaincre nit dëggantaan pour nga andi ko ci yow keneen ki woo ma léegi ne ma noo grand transhumant warul am mën na ko déet attends bu transhumant amul bu doon transhumance du am comme tey Pastef du judd parce que ñu jógee yeneen parti ñoo ñëw jàpp si adduna noonu lay doxee loolu tuddul transhumance dafa am loo xam ne yow yaay ñëw convaincre nit ñi ci li nga nekk ba ñu fekk sa li ba ñu ñëw fekk si la noonu la réew di doxee mais c'est pas parce que ñii dañu gagné rek ils doivent convaincre tout le monde tout le monde doit être convaincu déedéet déedéet code par code la code par code la code par code code par code ñoom lan la ñuy teg lii lañ teg réussir nañ ko à ah, quel pourcentage lañ ko réussir nii lañ ko réussir tel tel tel ba Touba émergent lañ teg naka ñu ñooy cotiser pour defar suñu réew. am ngeen xëy te xëy bi yàgg si na mois de juin juillet bi mooy suñu premier nawet te ñu ne 752 milliards ndeysaan teg nañ ko gars yi ne ko fuuf ñun nag bi mooy suñu premier nawet. doomu ministre du ñëw fatt ko ndiir doomu président mosul ñëw sotti foofu ay biiru xar wala sotti mbalitam pour dëkk bi fatt fii kii voie de dégagement yi mosul am ñun ñi dëkk si gox yi loolu laa mos a wax du ma war sama wax ñun waa Géejawaay ñoo fatt suñuy voie d'évacuation ñun waa Waagu Ñaay ñoo fatt suñuy voie d'évacuation ñun waa Médina Cambérène Parcelles ñun ñoo fatt suñuy voie d'évacuation parce que ñun ñoo ko def dépotoir dépotoir d'ordures loolu kan mooy xaar rek gouvernement bu bees bi ren bu nawee bu tawee bu nawet bi yegsee ñu ne la inondation du am pour inondation ñu ñàkk am ren ñun ñëpp foog ñu tawte d'abord mooy suñu premier chantier gars am nañ lu ñu doy xëy moo tax plainte yii nii damay porter plainte kii damay porter gars yi ngal la waay gars niñ leen jéggalante préparer suñu nawet bi mooy suñu premier chantier patriote ku yaakaar na yow patriot yow miy jógoon di xeex chantier Bassirou Diomaye Faye sant regarde pas da ngay nax sa bopp de gars yi eh, ñun ñëpp nous sommes concernés par ce chantier Bassirou Diomaye fay c'est le plus président le plus couvert nit ñaar la Sénégal ñaari président lay doxee moom il aura largement le temps de rester au Sénégal liggéey dëkk bi Ousmane il aura largement la temps ñëw à l'extérieur renégocier les contrats xam nu muy développer Sénégal Ousmane il aura largement la temps ñëw négocier contrat Sénégal yi amoon yëpp Russie yaa xam Chine yaa xam États-Unis yaa xam donc ñoom ñaar un président en vous fait deux kële na toogax ñun dëkk ba réglé lu muy régler su ma sañoon tey monsieur le président Bassirou Diomaye Faye tey day def tey un an tey Sénégal lu muy calculer Ousmane Sonko moom xoola nañ ko bàyyi électron libre bu mu nekk nii il est plus couvert là-bas début de processus lañ nekk munoo woon nekk président bàyyi suñu réew génn négo génn négocier contrat yi yàlla buy defar day mel ne luy yàq ndeke looloo gën ñaari président nit loo gis mën na nekk ñaar sànq maa ngi wax benn waaye mu ne ko Sonko dafa soppaliku mu ne ma comment mu ne ko di ko comprendre après parce que moom mooy génn signé ji contrat yi Basir mooy toog surveiller dëkk bi liggéey ko si qui fekk que le pays sera un peu apaisé mais man sama problème yëpp bu ñu booloowulee doon benn fexe ñu boo doon benn du baax de. Adji Sarr c'est un c'est un mal nécessaire Adji Sarr c'est un mal nécessaire mal nécessaire ndeysaan moo tax lu ko waay toppee rek <laughs> ñàkk xam adduna te yaa ngeen ne yaa ngeen weeru koor Sénégal dëkk jullit la te yàlla bi muy sàkk àdduna daka sàkk ak ay animation ku nekk war jouer sa rôle malaaka moytu ñëw war a yóbbu ñii ah ñii war gaañu ñii war def lii yéen yeneen ne ay jullit ngeen loo gis si àdduna yàlla bind na ko balaa suñu judd waaye léegi yàlla bind ko balaa sa juddu mu dal la ñu ne nañu jégalante nga ne non nañ dellu deux mille vingt et un reyoon nañ diw non nañ dellu joon nañ diw non nañ déedéet man nekkuma ci loolu saa yi mun sama yàlla romb na foofu sama yàlla romb na foofu 2044 bi ma leen di wax ne projet bi si la fekk Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay di toog son Sonko pare li muy toog di ngeen gis ne dëkk bi day naat ba ngeen jommi muy vingt ans yi du ma fi fekk te ça ne me dérange pas te maa ngi si horizon 2044 bokk ma yéen horizon ñaanu ma sax mu may fekk ci kaw suuf nii may plané aw ma jot bi Adji Sarr ñëpp ñu ngi ma naan grand yéen foog ngeen ne dinañ jëlaat Ousmane Sonko delloo ko naan ko procès Adji Sarr non non non on avance Ousmane avancé on avance on avance da ngay avancé avancé Ousmane avancé avancé combat bi ñëpp a participé participer gis gis nga combat dafa am lu positif am lu négatif ndax ñaari ñi xeex bu ñaari ñi xeexul du neex yàlla noonu lay animé àdduna Adama kan moo ko dékk du seytaane non ñoom ñaar ñëpp wàcce leen sur terre tey xeex baa ngi fi. lii mënu si woon ñàkk pour tey ñu xam valeur Ousmane Sonko lii mënu si woon ñàkk tey pour Bassirou Diomaye Faye toog lii mënu si woon ñàkk tey pour ñu xam ne pétrole Sénégal tey Sénégal moo koy gérer dafa am yoo xam ne mal nécessaire mënu si woon ñàkk. moo tax foog ñu dépassé ko foog ñu dépassé ko foog ñu dépassé ko. ay Moustapha Diakhaté naan ani lan bu faloo kan la ñuy wax sax way Coura Macky doo xaru xaru woo fenn xaru woo fenn waxu politique lañ doon wax xumbal la woon point final xaru woo fenn Sénégal nga nekk boo xaroo benn sénégalais mooy wàññeeku xaru woo article 88 laay ñëw parce que maa ngi dégg ñu bari bëgg ci taxawaat naan no bas dina def comme Macky Sall yaa ngeen naan amul charisme yaa ngeen naan amul li amul li eh article 88 du ñun ñoo koy doxal man boog du ma ci bokk article 88 du ñun ñoo koy doxal. Bassirou dafa am interlocuteur ak ñun Ousmane sunkoo mooy suñu interlocuteur 17 millions Sénégal yëpp Ousmane Sonko mooy seen interlocuteur ak Bassirou Diomaye fay te Ousmane Sonko ragalu ko. ngalawaay lu ñu metti si moom buñ ko waxee. moom dina ko ko jottali te dina koy wax ni nii ak nii ak nii lañ koy tegee. Daddy Kane nag léegi yéen ñu bëri di ngeen ne noo dafa changé changé wul de état moo garaaw ndax président ba sir Diomaye Faye boo ko xasee wax jiiteetul parti jiiteetu ma jiiteetul Mollah Morgun man mënatul parce que téléphone am dootu ko laal un de l'armée sénégalaise lañ koy jox mu yore saagam yore ay bagage am gendarmerie nationale moo koy yoreel ay bagage am te félicitation général tin lay commencé félicitation félicitations bu leen neexoon ni bii heure nu leen neex la réew mi di tego mais am na fu muy toll jël ngeen seen responsabilité xam ne dëkk bi am na président ku nekk xam nga yaay kan. am ku ma woo ne ma non homme de tenue du ñu mbokk ma ne ko déedéet. keroog bi mu leen naan Moussa Fall bu delluwaatee Vietnam di ngeen xam ne la république c'est une république sénégalaise mais pas mais pas la république du Sénégal non république sénégalaise lañ nekk nii parce que dafa nekk si lu bees. fii ba la 4 avril nag lañ jëm ñoom ñu ngi monter seen lépp dinañ defar réew mi dinañ def lii dinañ def lii dinañ def lii dinañ def lii dinañ def lii mais man refondation sociale bi may njëkk mooy si ñoom Mati Trois Pommes ñun ñi di live Françoise Hélène Guèye ñëpp laay waxal yéen ñëpp eh ñun ñëpp ay sénégalais lañ pour dëkk bi baax nañ fa dajaloo ñun ñëpp nekkoon si internet bi parce que tam ñu ñoo dóorante cinquième pouvoir bi mooy le pouvoir du clic au clap bi néewoon cinquième pouvoir mënut a fal président président internet la ñu fal cinquième pouvoir bi fal na président. pour jàmm ji dellu si nag ñun waa cinquième pouvoir Kaliphone gis naa ko tey mu def live gis nga ñun c'est le Sénégal gis nga man damay gis nit di wax naan c'est le Sénégal ma gis ay nit di ko saaga si suuf ma ne ndeysaan am na ñoo xam dañuy denc mer boo ku denc mer mu gaañ la gis nga boo bëggee nekk milliardaire libre bul denc mer denc mer baaxul day gaañe den denc mer day gaañe parce que gis nga bu ñu commencé saagante wat ni te Bassirou démarré gul xoola day naa si wat ñu jëm cinquante on a plus ce temps dañu war toog si internet bi di leen yee di leen éveiller di leen wax ne booy foog tel sacrifice foog tel sacrifice si la ñu yeggee si lii réew moo gis mu développé yaa eu des sacrifices sacrifice mooy lan yow li ngay ñàkk li nga mën a jox sa réew pas li ngay xaar non man am naa tel diplôme déedéet bag du métier bac du métier la jeunesse bag du métier on a du pain sur la planche maanaam fi ñu jëm dafa sori fi ñu jëm sori na te yéen dong yéen a fa mun yóbbu seen bopp benn saret du leen fa yóbbu lu dul yéen la jeunesse ñi am 60 ans ni ñu génn ndeysaan retraité ngeen gars yi retraité ngeen dem leen bàyyi xale yi ñëw defaat concours yi ñu reconstituer dëkk bi ñu reconstituer waat de nouvelles ba Bassirou Diomaye Faye dina ko def Bassirou Diomaye Faye va le faire image beeg yooyu yëpp c'est une première on comprend nu on vit laar te yooyu yëpp day am mais RTS moo koy jël nag parce que léegi nag ça devient RTS tele de la république RTS national mais premier discours am bi man de lu mu ci wax dong ti reconstitution national bi ne nañu bàyyi lépp passé nañu liggéey man loolu laa gëm man boobu falaa nekk kon ànd naa moom te dem ko si jàppale de du ma jàppale ñit ba bii heure man du ma di lekkaat du ma jàppale bas ba bii heure ay caprice ñoom partisans yi ndaw yi politiciens yi di tax may dellu ginnaaw déedéet kon samay booy séeréer yi ma gëmloo ñu jóge ci àll bi ma gëmloo leen ba tey ñu nekk ay capitaine de l'armée ñu nekk ay commandant de l'armée déedéet nee naa leen àll yii laa gëm ñii laa gëm ñii parce que dañu am pureté gis nga séeréer si dëkk si àll bi ak joolaa yi wolof yi nekk si àll bi dañu am pureté lébu yi dañu am pureté surtout cette jeunesse là booy on compte trop sur vous cette jeunesse deux mille vingt quatre quarante quatre ans deux mille quarante quatre ngeen jëmale réew mi te balaa deux mille quarante quatre suuf su bëri soo suñuy dox salte yeeg yëpp ça doit disparaître pétrole bi war na réagir si kër yëpp. tubaab war na fii ba le deux mille quarante quatre buy ñëw Sénégal di rang fii di ñaan visa comme ñun war nañu fii ba deux mille quarante quatre boo génnee passeport Sénégal. ñëpp kontaan ne y eu une révolution au Sénégal moo tax lii am fa te révolution bu yéen yéen a ko commencé la jeunesse du kenn ku leen ko defal du Russie du kenn ku leen ko defal yéen yéen a ko souffrir yéen yéen a ko reyante ndax yàlla loolu la bindoon loolu la dessiné woon seen jë yéen yéen gën réussir yeneen génération yi dëgg moo ma sonal mais code rek code leen lépp teg ko ci yar gi gis nga la discipline président bu leen wanee yar wan leen ko yar bu dëngee ngeen dëng mais ku jub nii wax ak yéen calmement il n'est pas complexe ñëw fi ne papa Cheikh xëxëxë premier discours am peut-être que newoon naa ko toppal si Tafa Touré artiste ñitu yàlla lañ parce que gis nga keroog bi mu feeñee bi Tafa Touré feeñee damay dessiner dama def dessin teg design bi rek ma ne Basirou li mooy yéreem bu solee lii rëcc mais bu solee costume du dem parce que gars yi dañ toll si rupture mënuñu panafricanistes yi di sol ay costume non non non panafricanistes yëpp ay fetal lañ yor solal ñu suñu yëre dëkk li laay war a sóolee sama gars yi ci rupture lañ nekk bàyyil Sonko daajeeku mais ñun ci rupture lañ nekk monsieur le président gendarmerie nationale félicitation bi mu jotee ba jot ba jot ba jot gis ngeen ne bu jaxasoo caaf xam au Fouta pour lan ngeen gis foo lu ngeen gis ma ñeme woon wax lu may wax ba dëkku Farba Ngom grand Farba jéggalu de ci politique lañ nekkoon mais la gendarmerie nationale a joué un rôle extraordinaire armée nationale li ñu doon déployé wu c'est les frontières yëpp élection yi moo sa leeree ni am moo tax démb am am kon moment bi Sénégal ñëpp a gagné ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a gagné ñëpp ñëpp a ñëpp ñëpp a gagné ñëpp ku jàpp ne kii moom ma doon dóor rek yow yaa gañewul ku jàpp ne damay fay suba yaw yaa gañewul mais ñu ñuy féex nii ñëpp a gagné lu ci des mooy jéem a gunge suñu waa ji jéem a tegu ci code yi jéem a tegu ci fépp. depuis 2017 maa ngi leen naan ba su moo Bachir am Ahmed Khalifa Niass buñ ma daan naqaral ne ma yow di nga xam ne Sonko di nekk seen président. baa mooy nekk seen président man leen da ngeen di sóob après ñu ne Khalifa Ababacar ndeysaan ba ñoom Bart commencé di wax no non léegi nañu fexe couvrir Bart bu deux mille vingt neuf yàgg naa leen ko wax si live man leen dañu waroon couvrir xala Khalifa Ababacar bu deux mille vingt neuf après si la Sonko di mën falu loolu yàgg ko wax si live bi nga naan Sonko <laughs> cinquième président yàgg naa leen ne est-ce que du Khalifa Ababacar mais boobu ñun si Babacar bi lañ doon basé wu. ñu dem ba si biir ne no barte bu doon trahirul Sonko. bii heure tey Barth la ñuy def président de la république parce que baaba baaba baaba ña ma waxoon baaba dañ ma woo démb si guddi damay jooy di jooy ñu ne ma ban Basiru ana Basiru tey falewul parce que man boobu man bañ naa waxate ci affaire ay sëriñ ki ma njëkk ne Basiru dina ko nekk ma ne ko woo waay bàyyi ma ñu avancé Sonko mooy doon suñu président mu ree ne mooy di nga xam ne du seen président ma ne ko mooy doon suñu président 2024 mu ree saan bake bala ay waaw waaw waaw tey nangu naa baa baa ngi nii Bassirou Diomaye Faye moo tax gaa yi kii ñun ku ñu war jàppale la liñ ñaan doon wax ci Serigne si dara gaa yi xaabaabal doon mais man teel naa xam ne Serigne si ñu ci xeex yi ndax nekkul ñoom ñooy dem voté kenn du ma bàyyiloo sëñ Bamba kenn kenn kenn loolu moom man moom dama ko dogg ndax man murit laa balaa dara ndeysaan sëñ Mountakha jiite ma julli lu bari ma xam si lu bari sëñ Bassirou Mbacke bu sëñ Fallou moo tudd Bassirou Diomaye Faye bi mu juddoo te kooku kenn xamee ko caaxaan Mbacke yi bari ñemee ñu ko sëñ Bassirou Mbacke bu sëñ Fallou moo ko téye te kooku ñu bëri xamuñu ko Touba duñ ko gis ndax xamu caaxaan jub xoj moo tax ñu doon jéem a wax affaire wax yooyu ñu nekkuñu ci loolu ñu nekkuñu ci loolu ay ñii salafiste lañ ñii gëmuñu diina gars yi ñu ñëpp ay murit lañ ñun ngeen di gis ni équipe bi mais dafa amoon nu ñu waroon joobee pour yegg si pour contre système bi il fa que ñu liggéeyee nii il fallait qu'on contre le système mais man sañu ma ay sëñ Moustapha Sall yu di ma wax yenn yi ma ciy teg baat mais il fallait que ñu contre système bi contre système bi mooy ñan entrepreneur yi yi war kër sëriñ si di ci wutee santé entrepreneurs yi ñoo war kër sëriñ si di ci wuccee chantier ñu loolu la ñu bëgg mu dagg yéen jeunes sénégalais yi ngeen bind seen projet def appel d'offre yi ñëw ngeen déposé affaire bi jaar si yoon ngeen am ko quitte à ce ngeen di déposé par internet ce qui fekk que léegi yaa ngeen gis si vote bi lu ñu leen defal ñan leen ñu defal leen loolu concours sax bu amatee ngeen déposé ko par internet ce qui fait que ku nekkee xam sa dossier fu mu toll ku nekkee xam sa résultat fu mu toll looloy transparence si man mais jox ma dossier bi ma lijjanti la la jeunesse fokk ngeen jàng tegu si yoon gis nga nit boo jàngee tegu si yoon rek après raay bi day daw mais doo bëggee wàcc yoon yéegaat wàcc yoon yéegaat wàcc yoon yéegaat mënutul nekk foog ñu ñeme liggéey foog ñu ñeme liggéey foog ñu ñeme liggéey mbëggeel bu ëpp rek man Basiirou du ma leen nëbb sànq discours am dam ko xool di jooy après booy passe ma vidéo moo laay wax man leen ah déedéet moo laa image lay wax ak son parce que jàllale TV la mais jàllale TV Bassirou Diomaye Faye la filmé tey de mais président Bassirou Diomaye Faye c' est la RTS qui va venir le filmer ça sera diamétralement opposé de ça c' est que nag kasingam ak ñi ko wër tout ça bu ko état xasee jël en charge ñi ko wër noonu ñu bëri dootuloo leen gis déedéet. parce que c'est le président des Sénégalais amal nañ ko budget lépp amal nañ ko lépp lépp lépp actuellement c'est le président de tous les Sénégalais xalifatul ard mooy bu Sénégal mooy suñu kilifa ñun ñëpp le deux bu xasee passé le trois bu ñu yeewoo fajar ñun sénégalais bu nekk à partir du trois boo ñibbee yomal xiyam bés di ba kar mu jëm jamono bu yàlla di àtte yàq Bassirou Diomaye Faye di ngeen toog bu nekkoon 22 millions ñun benn sénégalais bu nekk mu sëñ Mountakha dina toog. xam nga sëñ Mountakha lan la xam nga moom mooy organiser màggal gi moo koy réaliser mais yàlla kan la teg responsabilité màggal gi bu fa accident amee Bassirou Diomaye Faye parce que c'est le moo ko waroon sécurité bi kaaraanga gi policiers yi surveillé ndax oto yi baax na lépp c'est ça lui revient lui à Bassirou moom mooy xalifatul ard bu yàlla teg Sénégal parce que il est unique tandis que xalif yi ñoom nekk nañ quatre cinq xalif loolooy maanaam garab day taxaw samp mooy guy gi ñu samp Sénégal branche yi nag mooy kër diine yeeg institution yeeg ñun peuple beeg waa Casamance loolooy branche yi mais xalifatul ardi lillahi mooy kii ba ki fi yàlla samp mooy Bassirou Diomaye fay foog ñu nangu ko dee maintenant pour 17 millions sénégalais yëpp opposant comme pouvoir ya benn kilifa fi am mooy Bassirou Diomaye Faye mooy suñu interlocuteur diggante ak suñu borom lu fi mënti am nii actuellement ça ça lui revient sur sa responsabilité à partir du 3 avril sinon xam nga lu mu ñu rawee kilifa du tuuti moo tax bi ma gisee kilifa gendarmerie yi ñëw tóoj ci suba ci hôtel ba dama jooy ma ne allahu akbar ñii ñoo la bëggoon rendi bëggoon la jàpp mais seen liggéey lañ nekkoon te tey yow boo leen ko santoon léegi ñu dem def ko ñeneen ñi mais du loolu parce que état lañu nekk félicitation foog ngeen comprendre niveau yooyu ci àdduna ñi day toll foofu te Diomaye il est humble ndeysaan te am na benn booy gendarme séeréer dafa dem ñëw jooy ndeysaan <laughs> du ba man di jooy na ma grand ma ne ko man mii mënumaa xool waa ji maa ngi jooy rek ndax ndax ndax bég liggéey bi ñu ñëpp si entaché wu image yeeg yooyu yëpp xool ça va venir les gars man xam nga man lu ma intéressé code ba man 7 grammes yi Bassirou Diomaye Faye di posé xam nga yéen yaa ngi ni xool ay poids Bassirou Diomaye Faye naan mu nii la taxawee ne mais xam nga lu ma lu ma intéressé deux cent code deux cent cinquante ba cerveau ba man lan la ñuy jox lan la réseau am antan parce que xel mooy yéene mais jëmm mooy jëf loo gis si àdduna ñaar la xel mooy ruux ba xel mooy ruux moom lan la yéenee Sénégal mais léegi ñun lan la ñu war a jëfal Sénégal ndax du moom moo koy mën jëf du moom mooy mën wàcc tabax tali du moom def ñu yéenee ne fii laa leen teg ñun xel ak jëmm bokkuñu ruu ak jëmm bokkuñu ruu day yéenee jëmm di jëf moo tax ruu mooy set nañu setal rafetal ko pour mën a jàppale waa ji au moins bàyyi ko mu doxal sax benn deux ans ñu respirer jéem a daw ci leneen ngir yàlla début processus lañ nekk. premier conférence de presse lépp bëgg a toj déedéet man moom laay jàppale de ndax ñun ñoo leen ko andil tegal leen ko bu doon saf xal. dañ koy naan man dama koy naan man noonu laa mel bu doon saf acide dama koy naan parce que maa leen ne moom moo gën maa leen ne Sonko ko teg nañ ko jàppale lu mu mënti saf lu mu mënti jar dama koy naan ku may mënti jàkkaarloo dinaa jàkkaarloo yow mais dama koy naan erreur nag bu amee dinañ waxante dëgg mais dama koy naan ñoo àndoon ba muy neex safkaan yi on avance gars yi man ci refondation bi daal laa gën a compter pour ñu démarrer liggéey bi avant le 2 avril lu waay jàppaloon sa morom nak ko baal nañu fexe ba jour passation de service Macky Sall buy quitté pouvoir waa kër Amadou Ba ak waa kër Sonko ak waa kër Ablaye Wade ak waa kër Khalifa Sall gis ma su ma sañoon yéen ñëpp dajaloo buntu pale kenn du woowoo kenn du def dara Sonko bi la ñuy teg yëngal foofu ñun ñëpp àndandoo doon bloc. àndandoo liggéey réew mi bu ñu paree respirer ba élection législative nag ñu commencé waat politique mais nag il n'est pas temps ñu politique nañ leen jublu si nawet bi on a du pain sur la place yéen les patriotes nawetu ren ñu ñoo ko moom. débouché lépp loo xam ne gël tàppeeg fépp pont beek yëpp dañu wàcc gasal ko suñu bopp yéen waa Tëngéej jëkk yëpp bu leen xaarati état def dara ñooy wàcc setalal ko suñu bopp. defar li bañati ko fa def dara en attendant nag état di def devis teg projet en place ñu ñëpp jóg liggéey si. bu kenn xaar journée trois mille francs cinq mille francs pour développer dëkk chaque jour nga xëy am mille cinq cent mu nga xam ne sa réew nga koy defal ñu wàññi dund moo gën chaque jour nga wut cinq mille francs yoo xam ne mënut la mënul a dépenser loo reer est-ce que dégg ngeen fi may waxee nañu wàññi dund gi wàññi boo xam ne koo fay mille cinq cent journée pour mu wàcc pont wu Tëngéej di ko defar chaque jour du ko coûter dara ñun fa lañ tollu ci réew mi le don du soi fa lay bu ñu xasee wàññi dund bi rek don du soi gi mën yomb boo askan bi lekkee ba suur jëmmi sëñ Bàmba loo fi bëgg a liggéey day yomb Basiru jublil ci biir yi jublil si kalpe yi gars yi xiif nañu mar nañ dëkk bi sonn nañ courant bi coince na leen internet jaaxal leen gémi yi doon dóoraate di def ni salaire benn salaire doyul jàngalekat yaa ngi yuuxu salaire yi ay salaire quatre vingt cinq mille gendarme yi di ba ba sous-officier Sénégal xoola fayekul deux cent mil ay cent cinquante cinq mille la sergent di fayeku ñi ñii nii ñii di garder suñu réew ñii ne des coups d'état du fi am wër suñu réew ni li jeunesse bi bëgg daf fi am ñii seen salaire noonu la misérable est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal yéen ñi doon voté xeex léegi borom saret xoola ñaata lañ leen yéegalal seen ripaas xoola ñaata lañ leen yéegal seen ripaas yi xoola léegi kilo ceeb lu muy jar xoola location lu muy jar du ma tëj te félicité wu ma kenn nag ndax yi metti daloon na ma fi njaboot xamul tumuraanke xamul dara grand kaba kaba bu Parcelles Assainies daaw yuuxu naa bëgg si ngeen mu ne ma yeggalil combat bi may jël njaboot gi en charge jël ko en charge kooku ma sapare woon njaboot gi ak combat bi géral ma ko ba ma yegg si tey yow moom awma lay fay xaw ma lu ma lay fay mais métti métti di nga xam ne combattant la et je suis un vrai combattant man ndax du ma delloo avance loolu rek sama cat du ma delloo avance Sénégal vacances ren ñun ñëppay dem vacances yi amatul vacances yéen wa Casamance dem mbindaanu ji Dakar yéen waa dakaar amatul vacances dem kii dañuy vacances dem tool dina ñu fexe ubbi ay projet agriculture yoo xam ne ci biir tool yi par secteur lañ koy def par quartier bu benn quartier andee ay e am li ngeen di wutee ay subvention chaque jour état di leen tàmmalu yomb mairie def ñu war jox déedéet par quartier dañuy andi ñu fay xale yëpp journée mille cinq cent wala journée mille francs ngeen liggéey bu quartier boobu defee une semaine beneen quartier ñëw journée mille francs gis nga loolu moo ëpp trois cent mille subvention bu quartier bi yëpp commencé liggéey nga jël cent personnes journée mille francs journée mille francs boo leen ñëwee cotiser ku nekk deux cent ñu defal leen ko une semaine ngeen cotiser ku nekk deux cent ngeen xool kees keesu ASC bi ndax buy départ di ngeen xaar mairie wala doo xaar mairie déedéet foog don du sort foog ñu départal suñu bopp job bi comme ni ñu def Ziguinchor daaw foog ñu départal ko suñu bopp état fekk suñu fas bi gën daw parce que moment ci dawal fas lañ nekk amatuñu temps di la jeunesse on compte sur vous man moom man moom je compte sur man moom xawma ma la la dama gëm jeunesse bi gëw ma ne di ngeen tegg seen loxo bëggaat lu yomb déedéet gëw ma ne di ngeen bëgg lu yomb di féliciter ñëpp dellu félicitation la jeunesse ñun duñ ci lenn ñi ñuy jox information ñoom ñooy affaire bi jeunes yi ñoom ñooy affaire bi patriotes yi ñoom ñooy affaire bi waa APR ñooy affaire bi Mame Mbaye Niang mi def deux plaintes Sonko résisté ñu toj otoom gii Mari Sagna kott ko ñu xam gor ñeeg jaam ñi ci affaire bi lañu ñu bokk Madiambal Diagne xëy di toj xol yi xëy di toj xol yi samp ci affaire bi la bokk Macky Sall di toj nangul tudd tuur Ousmane Sonko ci affaire bi la bokk Marème Faye Sall ak luñ ci nga mënti waxal ci affaire bi la bokk ndaxte lan c'est le Sénégal qui gagne ñun ñëpp ay Sénégalais lañu mënuñu fi génnee kenn mënuñu fi génne kenn ñu toog waxante dëgg ci bët jéggalante toog def deuil national romb accéléré nag accéléré deuxième troisième quatrième cinquième sixième loolu laa gëm bàyyi leen góom ñi góom ñi jeex na ndeysaan bàyyi leen góom yi gars man de jéggal naa ñëpp lu ma waay mos a wax lu ma waay mos a def jéggal naa la ko lu ma waay def laa la wax jéggal naa la ko ba lu gën a piir jéggale naa lépp toppeewu ma kenn leen jëmmi sëñ Bamba ku ma topp yaa xam ne man toppeewu ma kenn leen jëmmi sëñ Bamba toppeewu ma ñu dara suxlu ma ba toj sama kër nungu sama lépp dàkk soxna si liggéeyam cinq ans depuis sa bayaaw sa jëkkër day noppi mu bañ ñu noq ko ci biti dara grand kaba jàppewu ma kenn dara ki toj sama kër ba sama njaboot ba ma am sët tey bu ñëwoon ma baal ko ne ko sa doom a ngi xool ko jéggal naa ñëpp barki sëñ Bamba jëmmi sëñ Bamba jéggal naa ñëpp billahi su ma naree bañ jéggal kenn yàlla bu ma fekkee korité jéggal naa ñëpp jéggal naa ñëpp jéggal naa ñëpp jëmmi sëñ Bamba jéggal naa ñëpp